2003 euh, 2022 comme l'artisan le théoricien en tout cas l'instigateur de ce qu'on appelait l'intercoalition Yewwi Wallu ñu ne lu mësul am ci histoire politique Sénégal tey jii soo xoolee assemblée nationale ni muy doxee euh, le comportement wala l'attitude des députés de Wallu Sénégal est-ce que Déthié Fall amul ay regret non je n'ai aucun regret gis nga regret mhm. euh, ku gëm yàlla du ko am gëm yàlla àndul ak regret mhm. chaque instant rek la nga war def def ko mm-hmm. aussi simple que ça et je peux pas être là à juger la ligne politique d'une coalition je suis pas de la coalition Wallu moi je la coalition Yewwi Askan Wi mm-hmm. et la ligne politique de la coalition Yewwi tous les députés qui sont là-bas ñoo ngi koy et on n'est pas dans un mariage hein mm-hmm. c'était une intercoalition pour justement avoir cette euh, cohabitation à l'Assemblée heureusement on l'a échappé de deux députés mmh. mais c'était presque fait mais maintenant wàllu je ne vais pas être là à le reprocher quoi que ce soit mm-hmm. parce que waxuñu leen euh, tey jii nii amoo benn possibilité naan leen ni ngeen war doxee wala doxal loolu mm-hmm. chacun fait ce qu'il a à faire et assume ses responsabilités aujourd'hui mmh. cette page des législatives ce qu'il fallait faire on l'a fait mm-hmm. nous l'avons réussi aujourd'hui nous mobilise li ñu mobiliser fii may wax ak yow nii c'est le plan PDF pour le départ du président Macky Sall <laughs> et foofu mhm. laa nekk guddi ak bëccëg te anticiper nañ ko gis nga le président Macky Sall je vous dis mhm. qu'il partira c'est que nous pour l'intérêt du Sénégal et son intérêt on veut qu'ils prennent la grande porte. la grande porte yaa ngi ci insister depuis boobu. Euh, euh, euh, liggéey ngeen ci certainement euh, comme vous avez certainement fait ci élection législative mais bi c'est une élection présidentielle nit la ak son peuple tey ji Déthié Fall qu'est-ce qu'il a ou bien qu'est-ce avoir qui ferait que moom dina nekk meilleur président que Macky Sall par exemple puisque moom nga bëgg a jël place am. bon le challenge là est trop petit pour moi. Ah, ah oui bon? Être meilleur président que Macky Sall. Ah non, franchement, il y a pas c'est pas un grand challenge. Il a construit le pays. Sénégal 2023 ah, franchement, c'est pas un, faire mieux franchement, c'est pas un challenge pour moi. je veux faire plus que les présidents français, américains et autres, mais le président Macky là. Boo ñëwee libéré détenu yi rek, tu as fait plus que lui. <laughs> Aussi simple que ça. Non mais franchement quoi. Pour pour pour pour, pour dire vrai. Non, vous savez, je l'ai dit tout à l'heure yàlla may na moo j'ai fait dix-neuf ans d'expérience politique mhm. et j'ai fait trois ans d'expérience professionnelle et yaakaar na ci sama jaar-jaar boobu mën naa indi mhm. lu mën a changer Sénégal moo tax wax naa ko bi ñuy def suñu programme ñu def cette démarche am aujourd'hui un programme bu Sénégal yëpp nangu rafetlu mhm. vous étiez là vous l'avez couvert et j'ai parlé tout à l'heure du stress social on a dit de façon très claire que mënuñu jël Sénégalais yi sëggaloo leen ci d'un repas à un autre loolu doon seen objectif de vie tous les jours et durant toute leur vie et boo dee xool moo ëpp on a dit il faut régler cette question la comment comment <coughs> le Sénégal aujourd'hui la réalité mooy du point de vue de l'agriculture li waroon defuñu ko Et pourtant, les statistiques disent que nous avons 240 000 hectares au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, 25 000 au niveau de la vallée de des centaines d'autres hectares arables sur le territoire. Et pourtant, on connaît à importer du riz, du riz, avec une facture salariale par an, 1 million de tonnes de riz. Mm. Mais qu'est-ce porteuses d'emploi vous vous souvenez d'ailleurs bi nu may dàq euh, quand j'ai fait l'intervention au niveau de l'Assemblée nationale mon intervention portait sur des solutions sur l'agriculture ndaxte mënuñu tey être aussi dépendant mhm. de l'extérieur vous avez vu il a fallu que Ukraine am difficulté mhm. que ñu am cette inflation importée de sorte que le prix des céréales augmenté et mhm. répercuté wu ci le prix du pain bañ dem ñaani ñaani ñaani Poutine euh, bay le président Macky Sall di wër di ñaani Poutine ay na xool nu mu ubbee hmm. ay axes pour faire venir des bateaux est-ce que vous avez vu le Maroc faire cela le Maroc je vous rappelle hmm. pays bi gën a tëj seen frontière bi Covid bi amee bi ñëpp ubbee ñoom ñu resté aussi longtemps di ko tëj ñoom la parce que li ñuy dundee réglé nañ ko ci seen biir réew et tout pays sérieux c'est la première chose bi ngay war régler. nous on a dit investissement ci ci mbay mi kese wala baykat yi nga xam ne ñoo suuf si inciter le secteur privé certains hmm. à aller vers duñ nangu suuf jàmbur inciter aussi inciter aussi non xam nga nangu suuf. Hmm. ba tey yaa ngi ci bayub suuf mais. Hmm. y a d'autres systèmes est-ce que vous savez qu'il y a les conteneurs farm aujourd'hui dans un système de conteneurs. avec plusieurs étages. nga xam ni boo jëlee la surface totale mën na doon l'équivalent de la surface d'un petit terrain ci biir conteneur bi avec les conditions température et aujourd'hui éclairage nga def fa mën nga fa bay nga nga nga bay fa des légumes un exemple très simple les choses ont tellement évolué mm-hmm. que mën nga dem vers cette agriculture bi nga xam ni mën nga ko def ci yeneen anam yu wuteeg sax l' agriculture euh, traditionnelle qu'on avait et aujourd'hui ces surfaces sont là elles sont à exploiter pire boo demee ci bale bi daa gis des pays étrangers yu hmm. ñëw di exploiter di yóbbu ci seen dëkk au moment où ñun ñu toog di xaar que le paysan pakistanais ou le paysan indien def li muy def après indul donc on règle cela l'intérêt de le régler oui. c'est que boo bëggee wàññi en ce moment les prix des denrées de première nécessité tu as tous les leviers pour wàññi ko mm -hmm. et ça c'est fondamental bu régler aussi la question de l'éducation parce que boo jëlee avant avant l'éducation boo avant l'éducation yaa ngi koy wax euh, si côté euh, agriculture bi soxla nañu xam parce que boo xoolee baykat yu bëree bëri wàllum soble si pomme de terre bi li ñuy bay ci zone des Niayes bi nga xam ne mooy ay poteaux zone yooyu noonu daanaka dafay yàqu ci seeni i loxo am ci yeneen baykat yoo xam ne dugub ak gerte lañ yaakaar buñ ko bayee ba pare boo moytuwul kilo fanweer lañ koy jaayee ji wala 200 francs ceeb bi nga xam ne mooy am fële ca vallée du fleuve aussi gis nañ jafe-jafe yi ñuy jànkuwanteel est-ce que du problème écouler produit yi en même temps aussi fexe transformation foofu la agriculture di gën a euh, amee benn benn zone boo xam ne mën na ci jaar dafa mel ni da ngaa jot lire sama programme ba pare <laughs> parce que on a beaucoup parlé de la transformation on a beaucoup parlé du secteur secondaire on a beaucoup parlé du secteur secondaire dans le programme et voilà doon ñëw pourquoi j'ai ma ma transité ci éducation parce que mm. c'est très important gis nga réew boo ko bëggee defar te assurer yoo une bonne éducation yaa ngi ci chemin bu baaxul c'est-à-dire que tu ne n'assures pas le présent et le futur parce que éducation moo indi tey jël leen ñu ñuy toog ci taable bii nii. Mhm. koo fi jël fan la génnee ci établissement public yi. oui je reste persuadé que jaaroo ci privé bi yow mi jaaroo ci privé bi pour doon secrétaire établissement public bi la ñu jël dugg leen ci biir kër yi seen doom yi fan la ñu nekk tey ñu ci ëpp. donc on est en train de surcharger. Mmh. le Ah, parce que l'école publique dañuy surcharger les familles parce que voilà donc ce tey jii nii da ngay am des charges yi nga xam ni tey mënoon na ñàkk parce que koo jël mu am yàlla may ko mu am juróomi doom même buy fay vingt mille par mois ça fait cent mille ñi nga xam ni tey bu fekkoon secteur école publique bi mu ngi dox ni mu daan doxee en son temps mais cent mille yooyu tegeeku na la et day yokk sa pouvoir d'achat donc il faudrait que ñu ni mm-hmm. l'école publique ci qualité bi mu amoon fexe bu aussi que les enseignants nga xam ni ils doivent être mis dans de bonnes conditions que cela se fasse bu ko defee ñu am ces enseignements de qualité augmenter le nombre d'universités augmenter le nombre d'écoles ne serait-ce que pour charge yooyu ñu mën ko diminuer wàccal ko Sénégalais yi on a parlé des loyers dans le programme. mais lañ fay jàng la ñuy jàng ci biir école yi. Euh, maa ngi nii tiim euh, programme bi mais gisuma ci euh, exactement lan lan lan nga proposer élèves yi bu lu ñuy jàng ci biir école yi ñu bari ñu ngi wax changement au programme bi nga xam ne daanaka guerre froide ak Mao Zedong ak yooyu noonu moom la ñëpp daanaka ñi jàng Sénégal ñu ci bari bari en tout cas ci lañ jàng. non un programme du génne loolu. oui un programme du li ngay li ngay li ngay. en fait saa mooy le contenu des enseignements. di jàng Mao Zedong. voilà ça boo bëggee développer agriculture faaw ñu koy jàng ci école yi. élevage faaw cest qu'aujourd'hui <laughs> quand le SN chargé de l'éducation va passer il va te dire de façon profonde ce qui va être dans les contenus mais le programme que vous allez disposer il va vous donner les orientations mm-hmm. les axes pour l'objectif bien précis ce que je suis en train de dire l'objectif c'est d'avoir une éducation de qualité et dans les établissements publics mm-hmm. parce que tey on a tendance à penser que établissement privé yi moo joxe la et en son temps vraiment je ne dénigre pas les établissements privés non non il est arrivé ci li ma bëggoon wax. je ne dénigre pas mais pour dire quand même que il faut que ñu rééquilibrer cela pour wàññi charge yi au niveau des ménages. Mmh. ensuite on a parlé de la santé. santé la santé parce que nous considérons que Sénégal tollootul quand même fu ñuy wax ay cases de santé il faut au moins. ñu am des postes de santé avec la présence d'un infirmier d'État et d'une sage-femme et dans chaque département ñu am des établissements publics de niveau un fexe ba yokk spécialité yi nga xam ni tey ñu bare ñoo ngi fay lu metti dem di ko defi à l'étranger mu mën a am au niveau du Sénégal et c'est possible parce que nous avons aujourd'hui les managers qu'il faut dans ce sens la Et anticiper tout à l'heure quand tu parlais de l'industrialisation, je suis un industriel qualifié. Euh, Déthié Fall bala ngay ñëw ci industrialisation ñu jeexal ci loolu da wax lu am solo sànq ci santé nga ne il n'est plus question que Sénégal ñuy fay ci ay cases de santé le chef de l'État le président Macky euh, day bari lu ñuy dégg